je suis man maay euh, professeur Ndaraw ndoy donc neurochirurgien la ci université Cheikh Anta Diop université bu Thiès ak université bu Bambey aussi. di di jël ay di liggéey ak euh, équipe neurochirurgie bi nekk fii euh, dirigé docteur par docteur Ndiaye ak docteur Manal tey nag li doon def moo gën a xaw a jafe tuuti lu démb li mhm. ndax boo ko seetlee doomu aadama bi ci biir cerveau bi ci maanaam yóor gi dafa am ay sidit yoo xam ay euh, tuyaux yoo xamante ni deret ju xonq moo ci nekk ak yoo xam deret ju ñuul moo ci nekk deret ju xonq ji day jóge ci ci xol bi yéeg ci kaw am oxygène nga xam ne ci lay ci la ci la loolu dund ci ci ci ci yóor gi ci lay dund léegi boo fa jógee nag deret joo nga xam ne dund na ba nga xam ne dafa xaw a mel lu dee lu ñuul day delluwaat ci xol bi dellu ci poumon yi mu amaat oxygène xale bi nag bi muy juddu ci benn tuyau boo xamante ni bu bu la boo xamante deret ju ñuul ji mooy nekk dafa jekk def benn mbànn mànn mu rëy rëy mànn moom normalul te bu bu jekki-jekkee toj day indi jafe-jafe ji bu rëy loolu nag moo dal xale bi ba li docteur Ndiaye doon wax léegi ne xale bi mu ñëwee il y a mois dafa xawoon a fet mbànn mi dafa fet deret ji génn moo xaw ko sonal lool lool daanaka sax xawoon na ci génn àddina te fa mu nekk kenn mënu ko opéré lu jafe-jafe la mbànd moomu nga gis nag day dund li koy dundal mooy ay tuyaux yoo xamante ne deret ji xonq la muy artère ñoo ñëw ci moom bu ñu tuddee ay afférence yooyu yëpp ñoo ñu di ko dundal te loolu dundal googu ñu koy dundal nag man daal ma def compétition ak ak xol bi maanaam day dem bay xëccoonte xol bi deret ji am na lu muy demee sax day defee insuffisance cardiaque maanaam xol boo xamante ni dootul mën a tëgg ni mu war a tëggee dootul mën a liggéey li mu war a faatu moo ci topp loolu nag moo tax technique bi muy technique spéciale boo xam ne dañu koy defal tey dañu benn mm, tuyau boo xamante ni deret ji xonq ji artère moom la ñu bouché tey ak col goo xam ne spécial col gi un centilitre un millilitre bi mu ngi jar cent cent cent euros dem nañu wax ni soixante cinq mille francs soixante cinq CFA donc moom la ñuy collé benn ndax mënuñu woon collé lu mat juróom ci tuyau yooyu nga xam ne dañu faa dem di nga xam ñoo koy dundal ndax boo ko boo ko jéemee rey tuyau yooyu boo leen reyee jéye ngay indi ndaxte day daal di ballon bi maanaam ballon bi wala kii bi nu mu tëddi euh, mbànd mi day jékki-jékki wàcc wàcc wàcc goo xamante ni loolu xale bi day day faatu moom la la euh, sunu xaritu euh, docteur Barbier moom la la expliqué léegi dane effectivement dañuy koy def ak docteur Ndiaye euh, dane dañuy dañuy jéem a supprimer maanaam rey benn vaisseau boobu ba nga xam dootu ko joxati mu lekk bu ñëwatee benn yoon def ko noonu la ñuy def ba def lépp waaye bu ñu tëbandoo tëbandoo xañ ko li muy lekk ah moom tam day xañee xaje xañ ak dund donc loolu mooy lu doy waar lool lool lool loo xam te nañ ci mën nañu ko war a waaye li ma ci mën a jàpp ci résumé mooy démb bi ñu defoon ñu ngi sant yàlla waaw ku tudd xaadim lañ ko defaloon ci hôpital bu xaadim Rasoul te ci dëkku xaadim bi vraiment sant na yàlla quoi. Euh, réussir na trop trop suñu équipe bi anesthésiste ñu ngi nii toog euh, docteur euh, Fall moom moo moo ñu permettre ci matériel ci lañ ko defee ah. parce que salle la boo xamante ni moom ci lay defee coronaro yi moo ñu ko livré démbal tey daanaka liggéeyul ci cardiologie ñun la doon liggéeyal. docteur Dieng mu ngi nii c'est un brillant anesthésiste moom liggéey na bu baax a baax ci projet bi ci euh, moom bi ñu ko dàmbalee ba tey daal nelaw nelawul ak équipe ñoom ñëpp ñu ngi nii euh, donc daal liggéey la boo xamante ni bu am solo lool lool suñu internet itam ñu ngi nii taxaw bon ñoom ñëpp ci lañ bokk ci liggéey bi. ci boo gisee ñu koy def transfert de technologie lay lay nekk xam nga li olof Ndiaye nee la di jàngal doomu aadama di ko may euh, jën jàngal ko ni mu net bi jën moo gën. parce que di sunu gan ñii di ñëw di ñu ko defal d'accord baax na ndax dañuy jàng ñu ngi permettre ñu jàng docteur Ndiaye dem am na gest yoo xam ni xam naa da ngeen ko sax ci ci ci vidéo yi def na am na yoo xam ne lu bëri na ko bon ñun ñëpp def nañu bon mais euh, am njàngat la moo xamante ni sunu waaye sunu waa anesthésie itam dañ koy gën a jàngat ak ñoom bu ko defee ñu ndax équipe la chirurgie du yow dangay ngay technique ngay def yow kii nelawal ci la bokk kii yee ci la bokk kii réanimation bi ña fay nekk ci lañ bokk année ñëpp la c'est un tout donc li ñu def euh, avant première la lu jiitu la ci am bariwul ñu koy def ci Afrique xanaa Afrique euh, de de euh, du Maghreb du Nord ñoom dañ koy def Afrique du Sud ak quelque pays sunu mbokk yi abi abidjanais yi dañ koy def donc ñun ñu ngi ci soog a dugg te itam lu am solo la dañu bëgg ñu encouragé ñu xam naa di yaakaar naa autorité sax dañ ko gis ndax autorité bu ñu ko gisee am na matériel yoo xam duñ ko bëgg lool lool ci Touba fii ci hôpital bi pour développer bi du loolu la bëgg a am na chirurgie yu bëree bëri du man mën naa nekk urologue yi chirurgie viscérale et cetera yoo xam ne ak teg ak matériels yoo ak cardiologie am na matériel yoo xam ne par exemple euh, sunu mbokk yi docteur Dieng effectivement joytu na ko xam ci réanimation yooyu euh, ak le directeur ñu ngi ci bu ko ñu am yooyu yëpp rek état bi dégg ko le président de la république dégg ko euh, jàppale ñu jàppale médecins yi waxuma sax mu jàppale hôpital Touba mais jàppale hôpitaux Sénégal yëpp bu ko defee parce que technique baa fi xam-xam baa soo ko yabalee loolu ñaata la boo ko seetee li ngay fay ah way li ñu def tey ëpp na ëpp na léegi boo ci boole billet d'avion bi ak lim ci li ci topp lépp loolu dafay nekk lu métti métti lu jafe-jafe donc euh, laal li ma ko waxee rek léegi li ngay jàngal Samba pour mu euh, di ko jox jën jàngal ko mu napp mu gën nan ñu jàngal ñu nappi <laughs> du CHU de Caen donc euh, je suis honorée euh, d'avoir pu faire euh, une euh, une expérience et réaliser une intervention aujourd'hui d'une jeune fille de 14 ans qui a une malformation dans le cerveau euh, complexe, euh, qui a déjà saigné et qui normalement ne peut pas guérir spontanément. Et on a fait donc le premier temps du traitement aujourd'hui avec euh, mes collègues euh, professeurs neurochirurgiens euh, de cet hôpital. C'est une première et je, je, enfin, je, suis très heureuse d'avoir pu collaborer avec eux. Et la patiente, euh, donc nous allons la, retraiter parce qu'il faut le faire en, plusieurs étapes et on, va le refaire euh, prochainement. Euh, le traitement c'est un traitement par les vaisseaux, donc on n'ouvre pas le crâne, d'accord on, passe par les vaisseaux en passant par l'artère de la jambe et on, met des tuyaux qui font environ 1 m qui vont jusque dans la malformation. Et euh, on va déconnecter les, les, les, on appelle ça les shunts, enfin les connexions anormales entre une artère et une veine, d'accord Et euh, ça évite d'ouvrir en fait, hein, le fait de le faire par les vaisseaux. Euh, donc là, on a déjà déconnecté quelques connexions, mais on ne peut pas le faire en un seul temps parce que ça pourrait aggraver la patiente. Euh, donc on préfère le faire de façon progressive. hein, pour que le cerveau puisse supporter. Mmh. Voilà. Et vous en tirez quoi comme conclusion euh, que j'ai envie de revenir travailler ici. Mhm. Vous êtes très satisfaite <laughs> Non, très super équipe. Euh, et puis j'espère euh, bah, pouvoir euh, voilà, travailler avec vous et qu'il qu y ait une belle équipe qui se forme ici, hein, qui puisse faire les, les mêmes traitements euh, que, que, que l'on a euh, aussi ailleurs. Voilà, c'est ça le but en fait de, voilà